fàttaliku ne euh, juróom-ñeenti commune ñoo fi nekk euh, juróom benn communes yi euh, APR lañu woon muy commune Koungheul ak Mayacine Camara Koungheul yi Ida ak Amad Ndaw commune Makoyop ak Magay Gay commune Missira Waden ak Moustapha Ndong commune Gent Pathé ak Mburuka euh, ak euh, commune Ribo euh, ak ak Yaye Sow conseil membre du conseil économique social et loolu moo doon APR bi demee ba ci biir yàlla may ju Maxari Mbay jóge PDS ñoo fekk ci APR Ousmane Ka Bay maire Lour jóge pédé ñu APR mu déssone ben euh, maire bo xamni mo déssone euh, euh, pédé PDS muy maireu Fass motax premier adjoint bi mu déparé pour ñun c'est c'est un maire qui est venu et c'est lool mo ñu jox résultat bi nga xam mom mom moo moom la lañ kontaan ñun ñëpp donc tay mën nañ japp ni juroom ñeenti commune yi nga xamni ñoo nekk ci département Koungheul yëpp tey APR moo ko contrôlé parce que benn bi nga xam ni maire bi du APR ñoo ko gagné kon juróom-ñeenti communes yi ci département Koungheul yëpp tey APR moo ko contrôlé ak les partis alliés loolu moo ñu may suñ 72 pour cent yi. Mm-hmm. ci kontaan bu baax.